bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp àjjuma ak tey ji fukki fan ak ñaar weeru avril atum 2024 li yéene kaay yi gën a yittewoo bokk na ci càkkutéef gi président Bassirou Diomaye Faye jibal jëme ci fonctionnaire yi le réveil yëgal ñu ne la njiitu réew mi ñoom ñu jub jubal te jubbanti Bassirou Diomaye Faye ne loola la mu ca jublu mooy teg réew mi ci yoon alalu réew mi itam ñu yor ko ci yorin gu mucc ay fàttali leen itam ne ñoom ñépp ñuy liggéeyal askan wi danoo war a rendre compte maanaam bu ñu liggéeyee ba nuppi wax askan wi dërëm ak dërëm ana fu fuñ ko dugal Bassirou Diomaye Faye administration booba nañ ña yëngu ñëpp dañoo war a am ci obligation yu nu tënk maanaam wareef yoo xam ne moo leen di tënk ñoom ñëpp ne ñoom ñëpp moom président ba liggéey bu mucc bëgg a liggéey mu doon lu sotti koo yëngal bëgg it ñu gën caa bàyyi xel am taxawaay bu mucc ayib ci réew mi am ko it ci alalu réew mi les éco ne président Bassirou Diomaye Faye bala mooy sàkk loola ca ñoom fonctionnaire yi waxal na leen itam ay baax-baax fàttali leen solo sin am ci réew meeg ni muy doxee rafetlu seen liggéey gi ñuy def bés bu yàlla sàkk waaye ba mu leen taggee ba nuppi moom président Bassirou Diomaye Faye léese ko ne artu ñu jub-jubal te jubanti Le Soleil ne droiture probité ak exemplarité mooy li président de la république Bassirou Diomaye Faye sàkku ci képp kuy liggéeyal nguur di agent état bi fonctionnaire yoo yaag la mu sàkku ca ñoom ca boobale bataaxal moo waral libération naan Diomaye fixe la cap ma ngay sàkk moom njiitu réew mi ca boobale yéenekaay ci fonctionnaire u réew mi ñu doon ay liggéeykatu réew mi doon itam ñoo xam ne dañuy jariñ réew mi te duñ ca sonn benn ya naat ya ne waaye itam réew yi ñëpp yi ndamoo yépp ñu am taxawaay bu mucc ayib taxawaay booba président de la république Bassirou Diomaye Faye tënk ko ci jub-jubal ak jubbanti fàttali na itam yooyele fonctionnaire ci bataaxalam booba moom jiitu réew mi ne dafa am solo lool kenn ku ne ci wi yëg ne boo gisee lu jaaduwut war nga ko mën a wax wax te dara du la ca fekk ñu ko ne njiitu ma ngay encouragé koo xam ne lanceur d'alerte nga boo gisee lu dul yoon dangay artu ñay boole defkatu njombe rawatina yéeni kaay bi ne lii lépp it la fàttali fonctionnaire yi ak solo si mu am jeexalee ci sàkku ca ñoom ñu jub jubal te jubanti waral journal bi ne BDF commande une transparence à la puissance 3 jamono jañuy wax wax yoreen wu leer kañ doon tuumaal yoreen wu lëndam ca AIBD di Abdoulaye Dieye ña koy jàppal tànk ca point actuel glace di fa becc la waral ñu di ko songu guddeeg bëccëg yéenekaay yi tuddee loolu acharnement sukkandiku ci communiqué bu bàyyeekoo ca service communication bu AIBD booba jamono l'observateur ngay jàngat communication président Bassirou Diomaye Sonko ci korite gi yéenekaay yi ne korite googa jëf nañ ci jëf yu rëy yu àndut ak wax journal ba ba mu ko càmbaree ki boroom xam-xam la mu ca gis mooy ñaar ñooña di président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko lanu bëgg journal bi ne loola mbaa du façon waajal askan wi ci liñ naan réel politique ñu xamle ca boobale yéenikaay it ni ñañu fal bees dañoo soxla ab temps de grâce ngir defi audit waaye itam xool ana yan yoon la ñuy jaar ngir teg réew mi ci yoon wu ca woowale wàll leeral yi ni ñu naan ca libération alal googa nanu ko yorek li nu bi ne ma nga jib ba nuy jokkalante lenge yi Le Quotidien ne ca jokkalante lenge googa ca ministère de l'économie et finance Abdourahmane Sarr ca la xamle ne seen jubluwaay mooy fexe réew mi moom boppam ci wàllu koom ministre Cheikh Diba yokk xar mi karaw ne bi ministère ca xolu boobale combat lay nekk Moustapha Ba mi nekkoon ca boobale moom naan histoire dana juge ndax sunu liggéey na mu wareem déet enquête ne waaw gannaaw jokkalante ngeen léengay ba noppi léegi nag waxtu jëf moo jot l'heure des actes journal bi fësal ci xëtam bu njëkk sax ña jokkalante léenge démb di Moustapha Ba ak Cheikh Diba Abdourahmane Diouf ak Moussa Balde Serigne Diop Gueye ak Abdou Karim Fofana Antoine Diome ak Biram Souleye Diop tribune ne Antoine moom ak biram sulay jokkalante nañ léengay waaye ci anam gu sobre maanaam daray xumbeel amu ca woon ñu des ak biram sulay jopp kàddu yim fi yëkkati woon nekkeen a bari wax ci jota am yépp biram sulay jóob moom yéenekaay bi ne waroon naatal leneen lu dul wax ju bari ndax ña koy xaar ca yorinu ressources minières yi ànd ak coow ministre yooyu ak seen coow lu bari li lii quotidien ne royu ñu benn yoon ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mi woote sobriété ak maanaam yar gu ànd ak tekk Mame Mbaye mi ne woon tekk ci coowal Prodac bi le jour boobaleb dañu yëgal ne Ousmane Sonko tàmbali naa jokkook secteur privé bi Serigne Mbuub la njëkk a dalal démb ba démb it yéene bi ne coowal suukaru koor gi imaam yëkkati woon fayegut yéene kaay bi ne féewaloo sax la mujjee jur ca seen biir ndax ña ngay ngàññante am ñu jàpp ne waruñoo laaj suukaru koor danoo war a am ngor maanaam dignité ña gis seen bopp ca wax jooja it yëkkati tontu jëme ca ñaleen di yedd réew mi quotidien jaar ca ca diggante Dakar ak Ziguinchor ña ñaawlu bato yeeg ni leen Macky Sall doon kidnappé maanaam bu leen meree rek bato yi dem géeg dikk gi diggante Dakar ak Ziguinchor tagatémbe ñu des Casamance ak le peuple quotidien mi jox jox kàddu jiba porte parole MFDC mi sàkku ci président Bassirou Diomaye Faye mu am taxawaay wi war ma koy fàttali itam ca boobaleb yéenekaay ko nag ne ñu ngi koy déglu ba xam wan yoon la nar a jaar ña ngi koy fàttali itam ne boobale guerre ñoom musuñu koo sàkku dañ leen koo forcé waaye journal baa ngay laaj ana lu waral waa MFDC jékki rek ñoom it yëkkati kàddu ña yoroon kàddu yi parti réew mi bu Idrissa Seck te tekki seen dombal tànk l'observateur booba jamono ma nga cay def taxaw seetlu di càmbar li waral baa xalaatu idi yooyay dog fu nu toll Walf Quotidien ca boobale jamono naan li mën a indil ndog ndog président Bassirou Diomaye Faye mooy cadeau empoisonné bi ko fi Macky Sall bàyyil te mooy bor bu bari bi ba jéggi dayo moom Macky mu bokk xët gu njëkk Sud ak Abdoulaye Wade Abdou Diouf ak Senghor yéene kaay bi di wax ci seen retraite yu bakkane yooya dañuy am pension dañu leen di dëkkal jox woto ñu am kaarange waaye jox personnel boo xam ne moo

dëkk bay nettali mu di dëkkub Kalidou Koulibaly manu fekk ca xët gu njëkko stade yérekaa bi ne am na juróom benneelu raaye ci carrière ndax Al ga muy jogante ak équipe ci wàllu football sunu làmb dikk ak ñun ci juróomi buuri làmb yi seen nguur gën a bakkane muy Manga 2 Tyson B52 Yékini ak Balla Gaye 2 ku ci ne yéenekaay bi dikk ci sa jaar-jaar ak jaloore yi nga def ci làmb ji yéenekaay bi ne Manga 2 nguuru na fukki at ak juróom ci làmb ji ndaw topp ca révolutionné lamb ji yéenekaay bi ne ma nga nguuru diggante 1999 ak 2002 Bombardier mi nga xam ne bu ñu bari jàppee ne jeexal na rek keroog lay gën taxaw yéenekaay bi ne 2002 ba 2004 moo doonoon buuru lamb ji ñu foog ne fa la yem mu ñëwaat jëlaat yëf ya 2014 yor ko ba 2018 booba jamono yëpp muy doon buuru lamb ji ñaar fukki at ak juróom benn la am maanaam 26 ans 2012 ba 2014 yéenekaay bi ne Balla wala mbee lamb ji ku mu dëkku daan la ku ko dëkk mu daan la mën bés moom gaynde géejawaay gi waaye kii gaynde dëgg sunu làmb mel ni ku naan moo ni ndax moo ci ëpp ay titre ci wàllu compétition internationale maanaam raaye yemu roñe ca bitim réew sunu làmb ni kenn ci mbëri réew mi amu ko yéene kaay réew mi ñun fii la lañu ci yem tey ñaanal leen kenn dal ak jàmm dig daje ëllëg incha allah